Mes chers compatriotes, demain 4 avril 2023, nous célébrons le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. J'adresse à chacune et chacun de vous mes chaleureuses félicitations. Par une heureuse coïncidence, notre fête nationale, symbole de ce qui nous rassemble au-delà de nos différences, se tient cette année sous le signe de la communion religieuse en ces temps bénis de jeûne et de carême. Voilà ce qui nous rappelle l'héritage des anciens, hommes de foi et de courage, qui ont bravé l'hostilité coloniale et sa prétendue mission civilisatrice et se sont donnés corps et âme pour former, éduquer et guider afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Une nation libre, ancrée dans ses valeurs spirituelles et socioculturelles et pratiquant son vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie. Nous devons respect et protection à ce legs ancestral fondement essentiel de notre modèle de société. Je rends hommage à nos résistants et à nos héros qui, aux heures sombres de l'esclavage et de la colonisation, ont livré la bataille de l'honneur et refusé, au péril de leur vie et de leur liberté, que le destin de notre peuple soit scellé dans la servitude et l'aliénation. Ce souvenir du passé nous renseigne sur la chance que nous avons de vivre libre et de transmettre à nos enfants le désir ardent de liberté et de responsabilité inhérente à la dignité d'un peuple. La fête de l'indépendance est aussi un exercice mémoriel, un souvenir des sacrifices immenses de nos anciens combattants pour la défense du monde libre. Je vous salue avec respect et affection, chers anciens combattants. Le souvenir de vos sacrifices restera toujours gravé dans notre mémoire collective. Demain, notre jeunesse et nos armées, forces vitale de la nation, seront aussi à l'honneur. À vous officiers, sous-officiers et militaires du rang, je renouvelle ma confiance et mon soutien. Je salue la mémoire de vos défunts frères d'armes et réitère à leur famille ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi vous, j'adresse mes voeux de prompt rétablissement. Au nom de la nation, je vous redis notre satisfaction et notre fierté je salue votre fidélité à la symbiose armée-nation. Votre attachement aux valeurs de la République et des institutions et vos qualités professionnelles dans la conduite de vos missions au service de la nation et de la paix dans le monde. Le métier difficile des armes que vous avez choisi est devenu encore plus complexe et plus risqué en ces temps où les menaces sont plus diffuses, plus nombreuses et plus imprévisibles. C'est pourquoi, face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurisation des personnes et des biens. S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités. Saraya, Bignona, Seyou, Konkane, Ranerou, Njum, Podor, Kafrine, Fatik, Mbour, Kurmassar et Jamnajou. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de dix nouveaux commissariats aux parcelles Zassini, Unité 15, Golfe Sud, Djamogun Sikambao, Rifisque Est, Yembol Komiko, Zagmbao, Tcharoy, Linger, Nyorudirup, Kungel et prochainement à Kermassar. Ces efforts sont renforcés par la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qui leur sont confiées, comme la préservation des ressources naturelles, thème de la fête de l'indépendance cette année. En effet, la protection de nos ressources naturelles reste au cœur des priorités de notre souveraineté, avec la raréfaction des ressources les pillages et trafics illicites de tout genre et la nouvelle vocation minière, pétrolière et gazière de notre pays. C'est pourquoi je tiens à la poursuite des plans d'équipement de nos forces de défense et de sécurité pour qu'en tout temps et en tout lieu, elles gardent l'ascendant et soient prêtes à la riposte. Mes chers compatriotes, dans mon message pour le Nouvel An, je vous ai entretenu de nos programmes et projets de développement économique et social, y compris l'état d'exécution de nos chantiers d'infrastructures indispensables à la réalisation de nos objectifs d'émergence. En dépit de la conjoncture économique difficile, l'État continue sa politique de soutien aux ménages comme en témoignent les mesures de lutte contre la cherté du coût de la vie, dont la baisse du prix des loyers. En même temps, tous nos chantiers d'infrastructures restent actifs, aussi bien en milieu urbain que rural, conformément à notre politique de développement dans la justice sociale et l'équité territoriale. Ainsi, après les autoponts de Yoff, Kurgorgi, Saint-Lazare, Lobadfal et Kermassar, celui de Camberen et le pont de Marsassoum ont été mis en service. Dans la même dynamique, je suis heureux d'annoncer que l'exploitation commerciale du BRT débutera dans le courant du deuxième semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux 100% électriques qui seront alimentés par voie solaire c'est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai. Le PRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de confort et de régularité, comme le TR. Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar et mettra au travail 1000 jeunes dont le recrutement est en cours. Mes chers compatriotes, demain, aux côtés de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, notre jeunesse vibrante sera aussi à l'honneur, à la place de la nation, parce que c'est elle qui, assurant la relève, porte nos espoirs pour le futur. À vous les jeunes, je voudrais vous dire que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d'être utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Vous resterez au cœur de mes préoccupations. C'est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l'éducation et la formation y compris pour nos dara modernes. C'est aussi le sens de nos politiques de soutien à l'employabilité par l'enseignement du savoir-faire. Dans tous les pays, l'expérience montre que si la diffusion des connaissances livresques permet d'avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l'emploi ou à l'auto-emploi. C'est pourquoi nous développons davantage l'enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active. Nous voulons qu'à chaque niveau de formation et de diplôme corresponde un niveau de qualification qui facilite l'insertion dans le marché de l'emploi. C'est ce que nous faisons avec succès dans nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Et c'est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 centres départementaux de formation professionnelle. En même temps, la DER poursuit ses activités de financement, d'encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes sur l'étendue du territoire national. Quant au programme Créer il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus, alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention étant employeur sur l'objectif initial de 20 000. Le programme de domaines agricoles communautaires, PRODAC, et les agropoles s'inscrivent également dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs. Nous ferons encore plus pour l'emploi des jeunes avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires l'Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D'autres sont en cours de formation. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j'engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeur de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d'autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l'audience que je leur accorderai dans les prochains jours. Ce soir, je voudrais aussi saluer et encourager nos 32 500 jeunes agents recenseur engagé pour les opérations du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, prévu du 15 mai au 15 juin, afin d'actualiser nos données démographiques et statistiques. Mes chers compatriotes, la fête de l'indépendance qui marque notre liberté retrouvée nous rappelle en même temps l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble. Une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain. Parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Vive le Sénégal, vive la République. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Khali Seck bonsoir salaamaaleykum Khali. waaleykum salaam Ibrahima. maa ngi lay dalal jàmm ñu ànd tata yow rek euh, nga euh, li nga xamante le président war. incha allah kon nag ñi fas yéene mottali jooju yéen ñu ngi lay nuyu di nuyu askan wi yëpp. njiitu réew mi di président Macky Sall nee ëllëg ak jàmm di ñeenti fan ci weer wi ñu ne ñu amal li nga xam ne moo doon juróom-benn fukkeelu at ak ñett bi ñuy amal suñu feetu indépendance. nee na ci loolu lay sukkandiku nag ngir sargal sant waaye itam delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi. nee na loolee nag dafa am loo xam ne ni moom la dajeel mu doon daje loo xam ne ni itam mbégte lañ ci mën a amee ak tam xol bu sedd guy ndax kat ku tudd Sénégal tudd suñuy diine te ñi nga xam ne itam ñoo bokk ci umma islamique dañu cee méngoo ak ñi nga xam ne ni ñoo nekk itam waa Kër Labbe ndax kat. koor gi nga xam ne ni ñoom la ñu bokk di ko defandoo nee na loolee nag misaal la ci li nga xam ne ni moo doon taxawaay bu ñu war a am moom njiitu réew mi nee na ñii nga xam ne ni ñoo fi nekkoon démbati yi soog ñëw nga xam ne itam ñoo doon ñi doon doon ni ci dëkk bii ñu nekk mag ñi fi newoon tey ku leen tudd itam tudd li nga xam ne ni moo doon jom tudd itam pas-pas tudd ay taxawaay boo xam itam taxawaay bu dëgër la bu mucc ayib ñooñu nee nañ nag ba fii noon bi ñëwee démb mu doon tubaab bi nga xamante ni doon nañ indi ay tartar ak na ak fitna ñoo ñoo tax woon jonn nag ngir jëflante ak ñoom nee na loolee nag ci la ñuy sukkandiku muy wal ñu téye càllawle googu ba lii doon itam njàng mi lii doon itam tàggat gi ñuy tàggat suñu askan ak itam teg gi ñu leen di teg ci aw yoon woo xam ne itam yoon wu jub xocc lay doon nee na loolee dafa doon loo xam ni am mbind muñ di jàng la saa su ne loolu nag moo ñu indil suñu Sénégal gi nga xam ne ni dafa moom boppam Sénégal gi nga xam ne ni itam dafa am cëslaay loo xamante ne ni ci ay jikko yu rafet jikkoy maxaarimul axlaax yu mag ñi ba jàngaloon démb ñu fekk ko fi tey ci la ñuy sukkandiku nee na loolee jàmm ji loolee ak yi nga xam ne itam moo doon kuute gi nga xam ne dañ koo wuute nag te kuute googu yow tam du lenn dul tam mu jëmmal ak benn ci suñu biir nee na loolee waaye waaye nañu fexe ba mën koo suuxat mën cee taxaw temm nee nag euh, li nga xam ne nii moom moo doon ndono loolu ñu mag ñi bàyyeel mu doon ndono lu rafet mu doon ay jikko yoo xamante ni itam ci la ñu war a mën a sukkandiku ngir mën a jëm ca kanam day nee na am na taxawaay boo xamante ne nii moom lañ ci gis mu di nag moo doon dëgg dëgg dëgg li samp ak kenn suñu askan ak suñu dëkk. njiitu président Macky Sall xam leen ne ñi nga xam ne nii ñoo doon ay jàmbaar yoo xam ne nii ku leen tudd tudd njàmbaar te démb tey soog a ñëw ba ci jamono yi nga xam ne nii dañoo moomuloon suñu bopp nee na njàmbaar te yoogu day ak jom jooju doon na loo xamante ni lu fës la luñ mën a teg bët la luñ ne jàkk la ndax kat loolu tey jii moo waral ñu am taxawaay boo xamante ni taxaw nañ ko suñ digganteeg ñu doon jëflanteeg ñun démb tey itam am fitna ju ñu tegoon ñu doon ñoo xam ne ni itam bu ñu demee nag ba dagg yenn buum yi bu ñu demee itam ba dagg yenn jéng yi ba dagg yenn jatang yi ak jéng gën ñu jéngoon nee na loolu nag la ko waraloon démb tey jii soog a ñëw war nañ cee bàyyi xel bu baax njiiteeram mu ne li nga xam ne nii moo doon suñu gànjar doon itam suñu koom ci wàllu jikko yooyu ci wàllu itam melo yooyu nañu fexe ba nag ba mën koo téye téye ko téyin woo xam ne itam téye wóor lay doon ne ko nuus téye ko téyin wu dëgër woo xam ne ni itam dinañ ko mën a dem ba nag jébbal ko suñuy doom ak ñi nga xam itam ñoo war a ñëw ëllëg ak jàmm ngir loolu doon loo xam ne nii mooy wëy di doon li téye suñu réew di téye itam suñu dem suñu kenn réew nee na feet gi nga xam ne nii moo doon suñu feet indépendance doon na feet goo xam ne itam ku ko tudd tudd fàttaliku fàttaliku nag fàttaliku njàmbaarte fàttaliku itam taxawaay fàttaliku itam pas-pas boo xam ne nii moom la ñuy wax suñuy ancien combattant bi maanaam ñi gàdd woon seen i ngànnaay nag te nekkoon nag tubaab bi doon itam aar tubaab bi doon leen jàppale nag bi nga xamante ne ni sañaxan ñoo loon leen am itam fitna juñ leen doon indil mu nekk ñoo xam ne ni bu ñu leen tuddee tudd suñuy maam yi nga xam ne ni bu ñu tuddee suñu kaaraange tey ji loolu ak càllawal la ciy doon nee na ñooñu mi ngi leen di nuyu di sargal ñooñu di leen sargal ak worma di leen sargal ak gëdd bi nga xam ne nii moom la ñu yeyoo ak itam wàccuwaay bi nga xam ne ni moom la ñuy yeyoo ak worma ji nga xam ne itam moom la ñu yeyoo ñoom ancien combattant yooyu nga xam ne ni démb tey jiikat kat bu ñu waxee démb tey bu ñu waxee tey jii démb tax te ñooñu itam kenn mënu leen a génn ci démb nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekk soldat si moo xam ña ca kaw ba ca suuf muy ñuy wax ay officier bi maanaa ñuy kilifa yu kaw yi nga xam ne itam seen i mbagg diis nañu ba ci ñi nga xam ne ni ñoom la ñu toftale toflanekk toflante noonu ba ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo féete ci suuf ñëpp mu ngi leen di nuyu di leen sant di leen itam xamal ne kat lii doon yaakaar ji nga xam ne moom am ci ñoom dara du ci yàkkeeku ak kóolute gi ak jàpp gi moom ba tey njiitu réew mi xam na ne ba tey ci wàllu suñu réew am na ci nag loo xamante ne nii moo doon ñi nekk ci wàllu kaaraange gi ñu am itam ñu demuñ demoon ba am seen bakkan root fa mbaa itam ñi am ci ay gaañu gaañu nee na ñooñee day ñu yeeyoo siggil leen ñu yeeyoo itam cër la ñu yeeyoo itam li nga xam ne nii moo doon warma lañ ak li nga xam ne nii moom moo doon dayoo ba ñu am nee na ñu kenn du leen fàtte ndax seen deret lañu ñu tuur ngir seenum réew ñi ca nekk itam am ci ay gaañu gaañu ñu ngi leen di ñaanal wér ak aafiya ci nu mu gën a gaawe ba tey moom jiitu réew xam ne ne euh, li nga xam ne nii moo doon suñu réew li nga xam ne itam moo doon suñu kaaraange dafa am lëngoo goo xam ne tam dañ koo lëngoo ak suñu askan di leen jàppale di leen taxaw ci li nga xam ne nii moo doon sas wuñ leen sas nekkuñ ne rek wàllu kaaraange gi naam ñu ngi ci waaye nag dafa am yeneen jikko yoo xam ne jikko yu tànneefu la ñu doon ñoom ñu meloo noonu bindoo noonu loolu itam ñu xam ko ci ñoom démb tey soog a ñëw ñuy wéy di ko doxal moo waral itam jàmm ji nga xamante ne nii ñi ngi ciy wéy di ci dox di ci gont ba li nga xam ne nii bu ñu ko tegee ci balance loolee da koy màndaxe ba faw xëy itam suñu njort njiitu réew mi xam na ne ku nekk xam na ni liggéeyu kaaraange am na fitna ju ci am li ñu maanaa di tubaab di wax risque bi maanaa loo xam itam daanaka loo ci mën a jëlee mu xoon gaañu gaañu mu xam itam bakkan bu corot waaye nag nee na loolu ba ngeen sol xamee loolu xàmmee ko ba teew tax itam ngeen sol seen yére solu arme itam dem di ñëw aar ba ñu mën a nelaw ba yandoor nee na loolee day lu rëy la loolee itam moo tax ñu war leen di delloo njukkal nee na nag am na ay ñaawtee am na ay defkatu mboosóor def na am na itam defkatu musiba yoo xam ne ni ba tey ñi ngi woy itam di gën a xereñ moo waral nag lépp lu muy def itam ci wàllu kaaraange gi di leen utal ay ngànnaay di leen utal itam di leen ay jumtukaay ki matuwaay nee na loolee dañu koy yokk la waral ñu koy yokk moo di noon ba moo yokkee di doon taxawaayam ak itam àdduna moo bindoon ni mel moo waral kenn itam du dellu ginnaaw ci la nga xam ne ni moo doon taxawaay bañ ca taxaw nee na bu tuddee wàllu gendarmerie loolu misaal la ci ndax lii ñuy wax ay escadron bi maanaam mbooloom gendarmerie moo xam dinañ leen itam ubbil fenn ñu mu nekk fi itam seen bërëbu liggéeyukaay nee na lu toll fukki bërëb ak ñaar ci Sénégal a ngi nii am nañ ci yu yees fu ci mel ni Saraya Bignona Sédhiou Koungheul Ranérou bu ci mel ni Jum, Podor, Kafrin, Fatik, bu ci mel ni Mbour, Kër Massar ak Jam Niadio, foofu yëpp doon ay bërëbu gendarmerie yoo xam ne nañ ko fa ngir mën di eh, saxawal li nga xam ni moo doon karange ñuy sent ci ñoom. Police bi itam noonu la ndax lu toll fukk commissariat yu yees bu ci mel ni parcelle unité. 15 fu ci mel ni Golf Sud Diamaguène Sicap Mbao fu ci mel ni itam euh, Rufisque euh, Est euh, fu ci mel ni fi nga xam ne nii moom moo doon yëmbal Comico Zac Mbao Thiaroye Linguère Nioro Dirib ak fi nga xam ne ni moo doon Koungheul te itam jamono yi néew dinañ tijji ca Kër Massar ba tey moom njiitu réew mi xam ne ne loolu yëpp nag mu doon ay jigo yu ñuy def mu doon itam ab lim bu ñuy jël takk ko mu néew say ngir mën a am ay kaaraange gu doy nee na loolu nag dafay laaj xereñte loolu nag dafay laaj indi li nga xam ne nii moom moo doon lay tolloo ak la ñuy soxla ndax nee na jamono moo ko laaj day dem nit ki bu fekkente nam dafa am sas woo ko sas am looy séntu ci moom da ngay mën a fexe nag ba teg ko ci anam yoo xam ne nii loola ngay séntu ci moom dina ko mën a motale nee moo waral alal ji ñu ciy def ak koom mi ñu ciy def ak li nga xam ne itam moo doon lii ñuy jël di takk niw say di ko toppatoo lu ni lii moo waral lu ni mel ndax nee na nag kaaraange dara amul loo xam ne itam mën na koo wecc nee na nag loolu nag buñ ko doon def démb nag te yi lañ ko war a gën a yokk ndaxte yi li fi feeñ mooy suñu alal di suñu koom di suuf ci suuf si ak loo xam ne nii moo doon wàllu pétrole wàllu gaz te loolu nag laaj waggar gu mat sëkk nag ak jàpp goo xam ne itam dañ koy jàpp sëkk ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon taxawaay bañ ci war a am ngir lépp loo xam ne nii moo doon nañ ko war a mën a wattoo nañ ci war a mën a fiire ba kenn bañ ñoo bëtt suñum ñàkk loolu ñu mën cee def suñu kem kàttan nee na nag ba tey leneen lu ko war luy war a wan a indi loolu moo di boo nekkee sam réew bëgg itam am ñu cër bu ñu la jox da ngay am melo ak taxawaay boo xam ne ni itam di nga ni mel ba li nga xam ne nii moo doon itam lañ lay xooleek lañ lay ragale loolu doon loo xam ne itam lu fës lay doon ndax neen suñu pétrole suñu gaz bi daal ak li nga xam ne moo doon mbel ak koom mi nekk ci si ak léeg-léeg itam jafe yi ñu ci gis ak ñoo xam ne dañuy ñëw di wëq ak itam di mbaal ak itam ne doo ñett suñu alal jël ko mel ni itam lu ñuy këf lu ñuy siif nee na loolee doon loo xamante itam dafa am lu war a mën a saafara loolu te la kay saafara nag moo di taxawaay bi ñu am ci suñu kaaraange nee na moo tax nag bu ngeen gisee mu def itte def warteef lii nga xam ne nii moo doon dolli gu ñuy dolli doole ci kaaraange gi nee na loolu rek moom moo ko waral bu ñu doomee nag ci at mi nga xam ne nii moom la ñu du génn nii at mii ñu nekk ci njëlbeenu at mi ba mu doon waxtaan ak askan wi doon na xamal li nga xam ne moo doon ay liggéey yu ñu def ci wàllu tali ci wàllu yoon ci wàllu pont ci wàllu loo xamante itam day gindi ay indi lii doon itam ak yombal ci wàllu dem beeg jikki bi ba jafe-jafe itam ñu mën leen a jatang mën leen a tënk mën leen a wàññi nee na loolu moo waral mu am loo xam ne ni itam lu muy bay waaram la ci waar woowu di ci soññ itam ñi nga xam ne itam ñoom la ci nekkal nee na naam jamono am na nu mu demee ak ay jafe-jafe ki tolluwaay naam itam jamono am na noo xam ne noonu la bindoo te mu wër àdduna kàpp waaye nag loolu teewul lii ñuy def ngir indi ak ruxsa ak njàppale suñu askan su ñi xam ne itam seen loxo jotul seen ginnaaw nee loolu moom luñ ci doon def benn itam dañ koy gën a ñaar ci la cay misaal itam moo di wàññite gi ñu indi ci li nga xam ne ni moo doon luwaas bi wàllu tali wàllu yoon wàllu pont loolu doon na loo xam ne itam lu fës la ci li nga xam ne nii moom moo doon liggéey bi li nga fës na itam ndax chantier ku xëppi sa bët itam di nga gis li nga xam ne ñu ngi ko ci def ngir gox yi nga xam ne nii dafa dafa mel ni itam am na daanaka nu ñu xawoon ne na ginnaawee loolee ñu mën cee benn indi saafara ba lii ñuy wax équité territoriale tollale xar mu dëkk yi loolu doon loo xam ne itam lu yemb lay doon ci pont yi noonu la ko tuddee yoof ñoo ko tuddee itam kër goo cité kër goo gi noonu la ko tuddee Saint-Lazare Lobat Fall ak Kër Massar ak bi nga xam ne itam moom moo doon Cambérène ak Marsassoum nga xam ne nii ñoom yëpp doon na lañ loo xam ne itam lu jàppandi lay doon moom ba tey njiitu mi di président Macky Sall xamal ne ba tey ci yoon woowu nga xam ne ci la jaar moo waral ci weer yi nga xam ne nii moom la ñu génn ba ñu nekk ba at mi ñu nekk bu ñu ba si juróom-ñaari weer juróom-benn weer yu mujj dina am yeneen loo xamante ni dinañ ko am ci wàllu berte BRT bi nag mu nekk loo xam ne nii daanaka oto buy daw la ci ay raay mu doon oto boo xam ne tam ci tali spécial am lay jaar loolu yëpp di gën a mandargaal rek taxawaay bi ñu taxaw ngir gën a mën a indi ak jàppale ngir gën a mën a dem ak yombal ci dem bi ak dikk bi nee na nag loolu BRT boobu eh, incha allah lu tollook téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ci ay busam bi maanaam ay kaaram moom te loo xam ne nii ci wàllu courant bi lay daw te dinañ leen ci dinañ am taxawaay buñ ciy taxaw te loolu sax dina ci gën a am ak jàppandi ci li nga xam ne ni moo doon jant bi ñu suñu borom jagleel ngir ñu sam ñu mën ci sukkandiku nee na loolee nag doon loo xam ne ni lu néew a néew lu ñu koy gis ci àdduna loolu nag incha allah la cay doon la cay firnde mooy weeru mais wi ñu dëgmal buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm loolu kaar bisi beerte yooyu dinañu tàmbalee daw nee na ba tey BRT boobu dina am lu mu indi la muy indi mooy lu tollook juróom euh, juróom ñett ñetti téeméeri junni euh, ci ay nit incha allah dinañ ciy mën di dugg di dem ak dikk te du am loo xam ne itam saxaar su leen di xër la te nee na nag leneen la cay nekk mooy internet bi nga xam ne nii moo doon lu mënta ñàkk la dina nekk bi mu jàppandi ci ñi nga xam ne itam ñooy nekk ci kaar yooyu nee na nag loolu doon na loo xamante ni ci wàllu woowu incha allah dinañ ci am taxawaay buñ ci taxaw nee na ci BRT bi ak TER bi itam am na ci taxawaay boo xam ne nii dañ ko indi ne ko ci ndax teer bi nga xam ne ni nag moo doon saxaar kiy dem ci yenn barab yi boo xoolee tey diggante Géejawaay ak Ndakaaru rek fu ñu doon def benn yenn waxtu ak fanweeri minute tey jii ñeent fukki minute ak juróom képp lañ koy def te nee na nag lu tollook junniy doomu aadama ci ay ndaw jël nañ leen ci ñu ciy liggéey am nañ ci ñoo xam ne mbaa boog ña nga xam ne itam ña nga leen ci ñi jël nañ leen lu tollook junni itam dinañ leen jël ngir ñu mën a bokk ci liggéey boobu te nee na sax jël giñ leen di jël ña nga ci waar woowu nee na loolu nag ci lay xuuse dugg ci wàllu ndaw ñi nee na li nga xam ne nii moom moo doon ëllëg ak jàmm tolloog ñeenti fan ci weer wii ñu ne dinañ amal suñu feetu indépendance mu ciy sargal di ci sant di ci kañ suñuy ndaw ndax kat nee na doon nañ ñoo xam ne ëllëg ñoom ñoo fi war a nekk te ñoo war a itam kuutaay li téye ndono li kon nag ñooñu dañ leen a war a waajal war a itam di teeg ñoom moo waral mu xamal ndaw ñi ne sama itte ngeen xamal ne leen itam samay yilimaanu soxla ngeen xamal na itam lépp loo xam ne itam bokk na ci li mu doon samay cër yu may taxawee farata ngeen ci nee na loolee na ngeen ko xam na ngeen ko xàmmee te buñ ci réeroo buñ ci juuyoo nee na xam naa bu baax xàmmee bu baax itam li nga xam ne nii moom moo doon seen itti seen bëgg-bëgg ak seen i mébét ak seeni naal nee na loolee nag lépp loo xamante ni moo doon taxawee bi biñ ci war dara du ca sooxee ba tey njiitu réew mi xam na ne li nga xam ne ni moo doon lu ñuy dugal ci wàllu koppar ci wàllu njàng mi ak ci wàllu tàggat ay nit ba ci wàllu lekkool yi fu nekk nag am na taxawaay boo xam ne nii dinañ ko ci gën di farlu ba ci wàllu daara yi nga xam ne itam moo doon daaru moderne bi maanaa ay daara yoo xam ne itam dañ cey jàngale ay métier nee na li nga xam ne moo doon wàllu njàng mi ak xam-xam bi nee na am xam-xam lenn la waaye nag ñu xawal am tam waajal la waajtaay woo xam ne ci ngay mën a jëfe xam-xam boobu mën koo liggéey liggéey boo xamante ni fa ngay dem ëllëg duñ la jàngalaat noonee xam-xam nee na loolu nag lu ñu war a bàyyee xel la moo waral ñi nga xam ne nii ñoo nekk ñuy liggéey ci yenn barab yi ak ñi nga xam ne itam ñoo nekk fenn fi ñu leen di jox ay cër yu ni mel nañ ciy gën di bàyyi xel nee na ñiy doon patronat bi bi maanaam ñu yor këru liggéeyukaay yi li nga xam ne nii moo doon lañ leen di jox ak la nga xam ne itam moo doon la ñuy séntu ci ñoom mooy fexe ba ñu taxaw itam bay seen waar ci loolu ci li nga xam ne moo doon xëy mi ak li nga xam ne itam moo doon taxawaay bi ñu war a mën a taxaw mën koo mën a jàppale ndaw ñi nen nag am xam-xam boobu ni ñu ko waxee ak am xam-xàmmee boobu bokkul nag ak am taxawaay boo xam ne itam taxawaay bu wër cëng la boobu suñ leen a acce rek nga ne acce ci wàllu liggéey bi nee na loolee nag waajtaal nee na loolu nag la bëgga a soññ gën a soññ bopp gën a soññ ñëpp itam moom ZEB yi nga xam ne nii dafay nekk yenn université yi te itam ñu cey tàggat ay ndaw ci seen àlluwa lu ci toll ak fan itam fanweer ak juróom-ñett ci ay yenn barab yoo xam ne nekk na ci département yi mu doon ay kër yu ñu fa tijji ngir tàggat fa ay wàllu DER bi itam nee na loolu la ndax DER la ko tax a jóg moo di indi ay koppar di ko jox ñi nga xam ne ñoo doon ndaw ñi ak soxna yi ngir jàppale leen te nañuy yaxantoo nee na loolu nag ba tey mandarga ci wàllu nu mel xëyu ndaw ñi itam lu tolloo ko juróom benn fukki junni ak juróomi junni loolu doon na loo xam ne nii lu ñuy mëna waajal la ci jamono yu néew ci li nga xam ne moo doon wàll woowu waaye tam am na juróom-benn fukki junni ak juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer juróom fukk yoo xam ne nii dugal nañ ko ci ay xëy ci wàllu ndaw ñi kon nee na xëyu ndaw ñi loolu ab taxawaay la ci nee na ci loolu li nga xam ne itam moo doon mébét ak bëgg boobu nag am na ci taxawaay boo xam ne nii du tolloo ko fukki junni ak ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ba tey am na ci ñu cee tàmbalee am ay liggéey yoo xam ne ci diggante yenn këri liggéeykaay yi nga xam ne nii dafa am lëngoo gu ñu lëngoo ak ngóor gi taxaw nañ ci wàll woowu nee nag bu ñu nee nag ba ca fa nga xam ne moom la la ñu bëgg mu doon suñu xemmemteef nag mu doon ñaar fukki junn yoo xam ne dinañ leen dugal ci wàll woowu nee na wàllu product moo doon ay tool yoo xamante ni itam tool yu dëppoo ak jamono la ngir mën a indi lu ñuy bay di dunde waaye tam ngir mën a indi am xëy ak wàllu agropole yi itam doon na loo xam ne nii ku leen tudd tudd waar yi nga xam ne ni war nañ koo def ci lu ni lépp loo xam ne nii moo doon wàllu xëy mi ak lépp loo xam ne itam moo doon wàllu rawatina xëyu ndaw yi ak seen xam ak seen xariñte loolu ñu mën cee bay waar woo xam ne itam waaru mucc lay doon nee na lii nga xam ne nii moo doon wàllu pétrole gaz bi nga xam ne ni suñum koom la bu ñu am ci suñu dëkk nee na am na ay ndongo yoo xam ne nii ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne nii lu toll juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñii doon ay ingénieur ñii doon itam yeneen xeetu technicien yoo xam ne dañ leen di toftal ci ñooñu ngir ñu am xam-xam bu wér cëng boo xam ne nii duñu jéggaane nañuy mën a jëfandikoo suñu pétrole suñu gaz bi loolee nag di contenu local mu di ñi xam ne nii moo doon suñuy ñoñ doon suñu alal doon itam suñu njaboot ñu mën leen a tàggat teg leen ci aw yoon woo xam duñ jéggaane lenn fenn nee na loolu moom itte la joo xam ne nii dina ci gën a soññ boppum gën cee soññ ñëpp ngir lépp li nga xam ne itam dañ koy soxla ci wàllu woowu mu doon loo xam ne nii dañuy gestu rek daal di koy gis ci suñu njaboot njiitu réew mi nag nee na mi ngi sant bu baax ci li nga xam ne nii nag moo doon ëllëg ba euh, fan yi bu war a dajee ak ñi nga xam ne ñoo doon patronat bi mu gën leen a mën a soññ ci lu ni mel ba moom njiitu réew mi nee na bu ñu xoolee li nga xam ne nii moom moo doon wàllu xale yi Euh, ak liggéey bi nga xam ne itam dañu koy liggéey ngir mën a xayma suñu askan mu doon juróomeelu yoon lu tolloo ko euh, fanweeri euh, junni fanweeri junni ak ñeent ñeenti junni ak juróomi téeméeri ndaw yóbbu nañ leen ci àll bi ngir lépp li nga xam ne nii moo doon nañ war a mën a xayma askan ñu mën koo def te ñu jàpp ko fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ci diggante weeru mai ak weeru juin njiitu réew mi nee na li nga xam ne nii moo doon suñum réew dafa am lu ñu doon loo xam ne itam dañ koo jël suñuy maam te ne nag war nañoo mën a góorgóor ba duñ mujjee poso bi mu réer nee nag loolu moo waral ñi nga xam ne nii moom moo doon taxawaay ak yar ak taxawaay bi nga xam ne nii moom la ñu suñuy maam bàyyi ak kilifa yooyu bàyyi nañu ko téye téyin woo xam ne nii wóor la ba li ñuy wax naan nañ ko denc suñu bëñ yi ñu tuddee roog seen nañ ko denc foofee ba kenn bañ ñoo tafu kenn itam bañ ci am lenn loo xam ne nii di nga ko ci def ba ëllëg bu ñu mënee soxla ñu mën a teg suñuy doom ci wàllu yoon ñu ba loolu duñ ko tumranke nee na nag bu ñu xoolee suñu réew wàllu waxtaan ak wàllu diisoo ak wàllu itam bokk di bokk menn pénc loolu dafa doon loo xam ne lu mënta ñàkk la nañ ci bëndi waaye waaye nañ ci gën a bay suñu waar nañ ci gën itam xiirtal suñu bopp nee na loolu itam nañ ci gën a gar suñu bakkan ndax kat réew mi doon nañ ñoo xam ne ñi askanu Sénégal dañoo benn niroo ba noppi itam waaye itam dañoo war a doon benn ndax dañoo booloo ndax benn li ñuy boole moo fi nekk waaye amul lenn loo xam ne ni kuutaay la amul xejj amul seen amul kuutaay bennoo gi nga xam ne moom lañ war a mën a bennoo daal te ñu fi démb na loolu nañ ko suuxat ku nekk mën cee bay waaram nee na nag mi ngi ubbi ay buntam ci wàllu waxtaan wàllu diisoo ak ñëpp nag bàyyiwul kenn amul xejj amul seen ngir li nga xam ne moo doon suñum réew daal te ñu war cee waggar war koo def itam suñu yëfi bopp war cee mën a jaayante ba dara du gàkkal deru Sénégal nee na loolu nañ ci gën a bay suñu waar loolu daal mooy li nga xam ne nii moo doon kàddu yi ndokkeel ak kàddu yi euh, ba nuyoo yi nga xam ne ni njiitu réew mi def na ko Ibrahima ci li nga xam ne nii moo doon itam feet ki ñu dëgmal muy sant ñëpp di gërëm ñëpp Ibrahima.